bi ñu ànd ak yéen a bëggee ba 9h incha allah euh, maa ngi fi ak Rokhane donc comme tous les matins ñëw ci l'invité actu euh, tey nag sunu gan ci Pape Doudou euh, Tunkara nekk secrétaire général bu collège délégué personnel bu CBAO si éventuellement parler de cette situation là Rokhane bonjour. bonjour Aïcha comment tu maa ngi lay nuyu bu baax. naka suuf si. oui ça matinal bi moom laal ngeen orange tey. <laughs> maa ngi bu baax. non non rouge rouge rouge ah. rouge la rouge. <laughs> boobu rouge la koy gisee parce que dafa ñëw pour kaas. lépp ma rouge instant yi bu ci sax dañoo rouge. <laughs> alors Adji maa ngi di euh, ziar doyen Mademba Ramata Dia. Mm-hmm. di euh, ziar ak euh, dalal suñu gan wax nga ko léegi muy Doudou Tunkara di secretaire général du collège des délégués du personnel de CBAO groupe Attijari Wafa Bank. Mhm. alors Doudou Tounkara ziar nañ la. yàlla na mu ziar. naka suba si sant yàlla bu baax. ça va on est très heureuse de te euh, revoir si réveil bi. Mhm. di la bàyyi nga nuyoon teg téléspectateurs yi. waaw ñu ngi leen di di leen sant di leen gërëm di ci jiital euh, kilifa kër gi muy euh, Serigne Cheikh Niass suñ Serigne di gërëm waa waa Walfadjri yëpp di beral loxo suñu Serigne suñu xarit sañaat yi ak sëñ Assane mi ñuy si tout le temps. merci mu ngoog ci kanam ak jàmm daañu waxtaanee situation gi ni mel wante euh, ñu ngi fii ak euh, doyen ma Ramata Dia pour la chronique du jour doyen nuyu naa la. waaw Aïcha fay naa la. comment tu naka suba si. waaw ci jàmm baax baax. mu ngoog kon ci kanam bi tudd ñëw daal di si actualité bi. ci kanam ak jàmm lay doon mais en attendant euh, xooxaan ma bàyyi la ak sa gan. waaw euh, dañuy euh, nuyu rek xëy sa Sénégalais yi nga xam ne jamono jile ñu ngi ñuy seetaan wax nga ko léegi ñu ngi dalal donc Papa Doudou Tunkara moom mu fare ci. Euh, syndicat bu euh, boot ñi nga xamante ñi ñooy liggéey ci euh, CBAO ñu gis ne daaw 2022 am na ab xeex bu ngeen sumboon mu jëm ci wàllu sàkku ngir ñu gën a ñongal seen seen seen liggéey ak gën a gis seen bopp également ci li nga xamante ni moo di liggéey gi démb ñu gis ne génn ngeen takkaat ay brassards rouges daal di amal ab toogaanu ñaxtu loolee dafay wundu ndax li ngeen doon sàkku amul ba léegi wala wala lan la waaw maa lay gërëm euh, xooxaan di gërëm auditeur ak euh, téléspectateur Walfadjri yëpp di nuyu waa CBAO bépp travailleur CBAO di leen massaw di leen encouragé xeex bi métti na yàgg na ku def 40 jours de grève ñu dagg sa salaire amoo salaire amuloo yóbbu sa kër amoo métti na te boobu ba léegi ñu ngi tey parce que li ñuy xeex moo ko jar danga wax sànq ne euh, depuis 2022 xeex bi yàgg na du 2022 rek boo seet boo seetloo xeex bi mu ngi commencé depuis 2008 bi fusion amee entre Attijari nga xamante ne groupe marocain ak CBAO bi ñu fi fekk ñu ñu fusionné nekk benn banque depuis boobu la xeex bi commencé amoon sax syndicat bi fi newoon amoon ku ko jiite woon muy maire Binta Sow mu jógee fi dem retraite ñun ñu continuer ba tey problème yi fi nekkoon ñoo fi nekk ba tey moo tax agent yi jóg ne ren jii moom mënta romb ñu ànd ak détermination mu jëlee ñu décréter ay mot d'ordre de grève ak conséquences yi mu mën a indi yëpp wax naa ko sànq salaire doo ko am terewul nit ñaa ngi jàpp ba léegi. moo tax démb ñu toog gis ne bi ñu defee suspension mot d'ordre bi loolu ñu rappelé ne direction générale moo ñu ko demandé woon ñu nañ de suspension mot d'ordre pour ñu toog discuter tranquillement ñu gis ne bi ñu defee suspension bi 15 jours après amul benn évolution amul. au contraire au contraire non non ñu ngi discuter mais discussion bi bi ngay demandé trêve dinañ ci ñëw après. point yi fa nga yemoon nga ni fa laa yemaat loolu mauvaise foi lañ koy gis nga ni euh, nañ arrêté nañ arrêté mbir bi ñu toog waxtaan suñu waxtaanee tranquillement jéego mën na am nga bàyyi ba trait bi jeex nga ni finalement sama la ma waxoon mënu ma cee changé dara donc loolu moo tax bi loolu bi loolu amee nag ñu ne ñun instant bii nii fi Sénégal toll ak gis nañ xeex bi ni mu méttee ci clients yi surtout clients yi sànq rek <laughs> yéen ñu koy wax ñu gis ne buñ fi grévé te grève bi ñu grévoon dina métti ci Sénégal mm-hmm. ñu ne nañ changé méthode di di def ay arrêt de travail à des heures déterminées def port de brassard rouge di def ay euh, euh, action spontanée moo tax démb ñu defoon benn rassemblement ci ci buntu banque bi pour euh, profité ci defaale benn point de presse pour expliquer Sénégal yëpp lan moo xew sa lan moo xew sa beew ci ci jafe-jafe yooyu bokkoon na ci fexe sàkku ba ñu am li nga xamante ni moo di plan de carrière waaye itam ñu daal di yokkaat li nga xamante ne xëy na moo di seen bu payoor waaw xam nga CBAO mooy banque bi nga xamante ne plan de carrière amu fa. Hmm. da ngay gis ko dugg ci biir banque bi nekk caissier am tous les diplômes qu'il faut du mës a évoluer dangay ñëwaat dix ans après boo ñëwee poste bi nga ko fekk foofu nga foofu nga foofu nga koy fekkaat avec toute l'expérience bi mu am ñoom il préfère dem jëliwaat ñu bees indi leen fa teg leen suñu kaw. loolu nag moom la ñuy xeex dañ ay étudiants yu yoo xamante ne ñoom la ñuy ñoom la ñuy dem recruter. te ñu jàpp ne nit boo ko recruter bees mu am ñi nga xamante ne ña nga fa li nga soxla profil bi am na fa diplôme bi am na fa expérience bi moom moo ko moo ko ëppale ki ngay jël ndax ki ngay jël bees la. yow mu nga préféré bàyyi fa ko te code du travail ak euh, euh, euh, convention collective nationale interprofessionnelle bi bi mujj bi kese. Mm-hmm. daanaka li mu wax ci recrutement externe daanaka booy wuti keneen ca ca ca àll ba dafay fekk ca biir ci biir banque ba amu fa profil bi nga wut amu fa diplôme bi amu fa te loolu amul benn recrutement bu ñu def loo euh, te nga xamante ne li ñuy wut amu fa am na fa mais dañuy il préfère dem jëli ñu bees teg leen suñu kaw si ñoo xamante ne ñoo ngànk liggéey bi depuis lors. ñu bees yooyu dañ leen di jël par affinité la wala banque bi mooy soxla profil yooyu ñu dem jëli ko. waaw xam nga am na ci loo xamante ne jékki dem recruter fekk. waaw am nga ressources humaines à à l'interne xam ne mën nañ def liggéey boobu loolu aussi. absolument xam nga ni euh, Sénégal fii nii Sénégal la. Euh, day jafe nga ni ko bu mu bu mu par affinité du bu mu recruter mbokkam. Mm-hmm. mais su koy def sax mu ànd ci xel. mais dañ ci ànd ak maa tay goo xamante ne. dafa jéggi dayoo day ñëw def maa ko def forcing indi fa ko xamante dañ koy xool souvent sax mu teg fa kenn ko xam dañ xool xam ne kii nii mbokkam la muy indi ko teg ko fa ba pare indi ko fa mu yilif ñëpp fekk fa ñoo xamante ne ñoo ko dàq jàng fuuf ëpp ko diplôme fuuf mu ñëw teg ko teg ko euh, ñu ñu mu teg ko seen kaw ci force ci ñoo xamante ne sax yow liggéey bi xëy na yow yaa ka koy jàngal defal leen problème loolu moo nekk sa yow. mais ba ngeen dalee tàmbali xeex bi yàgg na. boobu ba léegi est-ce que am na yenn point yoo xamante ne sax direction bi jot na ko jël en charge. am na ay point yu direction bi jël en charge. mais li ci ëpp si acquis yu ñu fa am dañ koy tuddee ak acquis mais nekkul acquis. Mm-hmm. lu ci mel ni tey bu ñu ne euh, président de la république dafa signé décret. un décret ne léegi IPM ràññalewul góor ak góor ak jigéen ni góor mënee jëlee en charge. jabaram ak doomam mm-hmm. noonu la jigéen di mën a jël en charge jëkkëram ak doomam foofu la IPM toll mm-hmm. moom mu bañ ne du ko def ñu grève deux jours mu soog ko nangu mu loolu kenn mënu tuddee acquis parce que décret présidentiel Macky moo ko signé mm-hmm. déjà mu ne man li du ma ko appliqué maa bañ nga grève deux pour mu soog ko appliqué loolu mënuñ ko mënuñ ko tuddee acquis loolu lañ ñuy tuddee ay réclamations yu ñuy teg parce que yoon moo ñu ko jox donc yu mel noonu lañuy lañuy lañuy lañuy la ñuy am benn par benn benn acquis bu ñu fa mën a teg mooy su suñu plateforme revendicative bi mooy euh, li jëm ci carte restaurant yi nga xamante ne banque yëpp dañ ko am ñun ñu nekkoon ci ginnaaw amoon 40 000 yeneen banques yi ñii am ay 80 000 double dañu lu ñu am ñeneen ñu am ay 90 000 mille ñu am ay 70 000 ñun récemment lañ ñu ko yóbbul 55 000 et je rappelle que banques yi fi nekk yëpp ñëpp ku ci gën a tuuti mu ngi nekk 60 000 am na ñu am ba 90 000 m na ñu am plus ñun yàggul dara ci weer bee passé lañ nangu jëlee ko 40 mille yóbbu ko cinquante 55 mille. ci ci point yooyu également ñu gis si lu mel ni euh, augmentation généralisée des salaires ñu gis li gouvernement du Sénégal def ci fonctionnaire ñëpp gis ko fi mu ne nii nii boo gisee jàngalekat yi seen coow wàññi wàññi euh, en fait euh, ci jëm ci wàllum payoor wàññi ko na tuuti. ndax am na ay augmentation yu am solo yu ñu leen defal yeneen fonction te yeneen fonctionnaire yi aussi bi ko état bi defee dañoo joxe ndigal joxe con joxe conseil ne na ko privé bi na ci privé bi topp bi mu waxee loolu ñu gis yenn banques yu mu fu mel ni ay banque islamique mel ni ay SGS ex ex SGBS waa BICIS seeni direction accompagner leen ci ñii avant ñuy demander sax seen direction générale defal nañ leen ko yenn banques yi bi ñu takkee brassard rouge une semaine une semaine lañu takk brassard rouge ñu ñu defal leen ko ñeneen ñi benn AG lañ def ci biti rek ñu jël defal leen ko ñun def nañ 40 jours de grève ba tey suñu direction générale lim ñu nangul li ñu ko demandé daf ne moom ñu ngi ko demande ne ko dañ nañ bëgg mu yokk salaire yi au moins ñi nga xam ne CBAO mooy banque bi nga xamante ne salaire yi foofu la gën a da ngay gis benn benn banquier bu am salaire moins de 300000 francs mille weer 300000 wallahi am na fa am na koo xamante ne salaire am yeggul 250000 ñu ne leen ñooñu nañ yokk seen salaire au moins brut de 150000. ñi seen salaire eh, jugee zéro ba ba ba mille ñoom lañu ñu wax ne ñoo gën a tuuti salaire nañ leen yokkal 150000 de 500000 à 750000 ñu ne nañ leen yokkal 125000 750000 jëm 1 million ñu ne nañ leen yokkal 100000 1 euh, euh, un million jëm kaw. ñu ne nañ leen yokkal 75000 léegi xam nga lan lañ def bi DG waxee ne d' na ci sur le principe d' augmentation des salaires ñu booleel ñoom ñoo toog bi ñu toogee ci table ñu jël suñu proposition dëpp ko ni ñu ko defee mooy. ñoom dañu ne léegi salaire yu ndaw yi ñi am ñi ñi am de zéro à cinq cent mille ñoom cinquante mille lañ leen mën a yox mais boo jëlee cinq cent mille ba sept cent cinquante ñu leen dañ leen accordeel six pour cent ci seen ci seen ci seen salaire ñi jógee sept cent cinquante mille jëm fi nii salaire yu mag yi ñu ne quatre quatre pour cent boo jëlee ki am six millions te ñoom ci ñoom ñoom ñun ñoom ñoom ñu toogoon foofu ñoom ñoo ñoom ñoo am salaire yooyu boo jëlee ko am 6 millions wala wala ko am 5 millions nga defar ko 4 4 4 pour cent ay 200000 ak i 250000 ak 300000 la ñu am mais salaire yu ndaw yi ñu ne ñoom mënuñu dépasser 50000 francs ça veut dire que ñun dañoo xamatul direction bi ñu am manage manage management bi ñu am ban façon nit lañ parce que yow bu dee da amul benn yërmande ci say ci say liggéeykat. lépp lu ñu joxe lu jëm ci prime de résultat on a demandé le relèvement du taux de de la prime de résultat de 5 à 8 pour cent. c'est une demande qui date de Mathusalem. boobu demande aussi satisfaire ñu ko. bañ nañ te banque yi fi nekk yépp yu ci gën a ñun kese CBAO ñoo ñoo ñoo ñoo nekk cinq 5 pour cent yeneen banques yëpp ñii ñu ngi 8 pour cent ñii ñu ngi 10 pour cent. en en tout cas dépassé nañ cinq cinq 5 pour cent. mais ñoom non seulement dañoo bañ. mais dañoo jël fañ fa nga xamante ne moom nañu fi jël ñu yokk taux boobu ñoom dañoo créer beneen enveloppe tuddee ko bonus bonus boobu lañ jël teg ko mu nekk benn genre ñëpp xam nañ lan mooy bonus mooy genre genre surprime la mais dañ ko encadrer ñoom seen biir le top management ñoom rek ñoo koy am il se tape des millions ah sur le dos des travailleurs maanaam dafa mel ni daal golo mooy bay baam baabum dundee yow daal boo nekkee ci ci. bas ci bas bi. boo dàqoon liggéey ci banque bi. am ci ay performance yu kenn amul doo mës a laal prime. mais ñoom top management bu bu bu année bi jotee rek ñu séddoo seen i prime. kii 10 millions kii vingt millions kii daal moom daal. lañ naan moment bi ñuy am ñoom 10 millions 20 millions am na ñenn ñi nekk ci li travailleurs yi te du ñu jot dara ñoom ci sopp. bokkuñ ci bonus yi doo am tous <laughs> dara doo ko am maanaam daal ñoom il se permet d' avoir les privilèges qu'il faut mais ñun loo demander lu ndaw. loo demande lu ndaw dañuy bañ gis nga expatriés yi yi jógee Maroc dañ ñëw fi Sénégal suñ leen waxee avantage yu ñuy am. même ngeen baal ma ci wax ji même seen fourchette wala seen kuddoog wala seen détail yeneen yëpp banque banque bee koy jënd. mais ñun. il suffit nga demander benn affaire bu ndaw. bu ma la déggee da nga bëgg a wax ne ñoom euh, il traite mieux les étrangers que ñi nga xam ne ñooy doomu réew yi. voilà seen ils sont logés nourris blanchis boo bëggee dégg-dëgg logés nourris blanchis. te yéen a bokk li ngeen di liggéey wala li ñuy liggéey. est ñooy liggéey liggéey bi. ñun ñooy cheville ouvrière banque bi. mais est-ce que grève bi tamit yéen ngi sentir ni am na impact ci entreprise bi parce que dafa mel ni daal direction bi dafa soofantal. bien entendu alors que bu amee impact dina am lu mu jural. kër gi ñëkk lañ ko ñëkk lañ ko jàppee ak koo xamante ne yow euh, direction générale yu bëri jaaroon nañ fi da doon yëngu-yëngal. grève mu si fee am si ba yow da nga takk sa bras def à ñu wala nga toog mais kii même lu état bi li nga xamante ne décret présidentiel bu ne les la collège des délégués doit être reçu au moins chaque mois une fois par mois le collège des délégués doit être reçu par le euh, chef d'état d'établissement nga xamante ne mooy directeur général bi dafa bañ y a pas de rencontre mensuelle avec lui systématiquement. et côté état woote ngeen waaw woote nañ fa dem nañ comme ni nga ko xamee rek bi coow amee. direction générale du travail lañ dem ñu con ñu convoqué direction générale ñu ñëw toog bi suñu DRH bi ñëwee ba mu ñëwee ci salle bi toog inspecteur bi bi ko woon mi ngi ñuy déglu dafa toog DRH bi na ko je n'ai rien à dire à ces à ces délégués là su suis venu répondre à vote convocation foofu la coow li commencé. loolu la waral ñu dem ba am suñu préavis de grève déposé ko dem grève parce que boo amee interlocuteur boo xamante ne soxlawu la nawloo la bëggul bëggul toog ak yow. mais ñun aussi tamit mais ay sénégalais lañ. dëkk bi lañ dëkk. doo jógee feneen même bu dee ne yow banque bi yow yaa ci investir ñun ñooy liggéey liggéey bi. dañuy toog waxtaan. dañuy toog waxtaan parce que lu mel ni tey euh, xam naa ne fii sax du ñàkk ay clients si ba yow am na fi mais da ngay gis yow ñu ne la yow yaa yor portefeuille tel ñu affecté la ci benn agence tel ñu ne la sa portefeuille 1000 clients la war a yem mais ñu bàyyi sa portefeuille muy pourrir ba 3000 clients. am na ñoo xamante ne presque ay 4000 clients yow 4000 naka la la client yëpp di jotee. mooy waral nga gis client bi agent gestionnaire de compte foo koy jotee mënoo ko mënoo ko jot. tu es obligé de te déplacer. mënoo ko jot benn benn téléphone benn téléphone benn nit benn bopp benn machine. ñu jox la 4000 clients ne leen toppatoo leen mënta ne. li nga mën li nga mën donc moom ngay moom ngay def. Hmm. moo tax ngay gis agence bi yow di fees dell ñun nag surcharge de travail boobu. moom la ñuy kaas duñ ay mbaam euh, euh, ce que dafay am ay bonus yu leen di jox. par rapport ak surcharge boobu. wala seen heures supplémentaires yi nga ma jox la exemple. lu mel ni ay ñi nekk ci front office bi dafa am ay opération d'assurance yoo xam ne dañ dañ koy def te euh, code de code des assurances ciment code ciment li mu wax dafa leer. bala nga def opération d' assurance da ngay am carte da ngay am carte d' assureur d' abord ba pare. Mm-hmm. en plus képp kuy jaay benn benn benn benn produit d' assurance dangay am commission mu ñoom commission bi dañ koy téye ci kaw dañ koy téye ci kaw maanaam kiy jaay. mën ngaa jaay ba ba li ñaan ba monsieur Ndiaye kontaan mais doo mës a jot commission jamais de la vie mais ñoom ñi ci kaw ñoom ñooy jël commission yi après di ko seddoo si si si seen biir. maanaam manager bu ñu nee par exemple euh, agence tel moo moo ëppale lu lu loo xamante ne jaay na ko au lieu ñu set agent yi nga xam ne ñoom ñoo ko jaay dañuy jël ki manager bu mag bi coiffé zone boobu moom lañ koy jox. Mhm. alors que loolu du yoon. code ciment ne képp ku jaay produit d' assurance am na benn commission bu war a ñëw fa CBAO daal dañ jël liggéeykat yi ñoom dañoo jógee fee ñëw jël liggéeykat yi ay sénégalais daf leen baam. d' accord alors golo bëy dundee. on ne peut rien avoir là-bas même acquis yi nga xamantoon amoon nañ ko avant avant ñu ñëw dañ koy grignoter benn par benn di dindi. Ah ñun nag dañoo tiit dañoo tiit ci ëllëgu CBAO mhm. parce que wax nga ko sànq grève 40 jours foog mu impacter PNB wu banque bi même bu dee ne CBAO du tere day nekk banque bu mag ba léegi mais CBAO moo nekkoon première banque mais léegi nekkatu ko te si si ça conduit dañ ñun duñ deltu ginnaaw lenn rek moo mën a tax ñu deltu ginnaaw ñun nangoo toog. ñu toog ñu waxtaan. solu solution mais tant que loolu amul ñun nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. d'accord euh, gis nañu ñu ngi jëm ci ay euh, élection euh, de représentativité ci wàllu central syndicale yi. est-ce que am ngeen ci ab centrale syndicale boo xëy xam ne ni affilié ngeen foofu ngir ñu mën a ñëw xëy na bokk ak yéen li nga xam ne mooy combat bi. waaw may rappeler ne ñun SUTBEF lañ bokk. SUTBEF muy syndicat unique des travailleurs des banque et établissements financiers du Sénégal. CBAO nekk fa daanaka section bi gën a mag. département bu ëpp effectif. Euh, ñuy waaw waaw ñuy ñuy ñuy ñuy. Euh, waaw xam nga SUTBEF mi ngi affilié wu synthèse synthèse d'accord mm. syndicat euh, confédération nationale des travailleurs du Sénégal bu suñu secrétaire général Giro Mori Giro jite waaw élection yi mardi la incha allahu rabbi ñoom sax war na war nañ faa ñëw mais CBA moom dafa nekk banque bu mag Eh, te suñu xeex bi dëgg yàlla bi ñu ko commencé ba léegi eh, kenn toogul moo di gërëm toogul ñu topp ci ginnaawam ñoom Ndiouga Wade ñoom eh, Lamine Fall kenn toogul ñu ngi ciy jàppale mais yeneen centrales syndicales yi également ñu ngi ñu ngi ñu ci jàppale parce que dafa yàgg. dafa yàgg toog ñun moom dëgg fa yàlla képp ku ñëw pour jàppale ñu si xeex bi duñ mënul lu rek tàllal la suñu loxo donc ci loolu ngeen gis démb waa waa CSA yi ñëw fa ñu leen di gërëm di leen di leen sant bokkuñ ci ñoom. mais ñoom dañu ne seetuñ loolu seetuñ ko bokk si ñoom ak ko bokkut si ñoom ñu ñëw di def campagne tombeek ñun ñu def suñu assemblée générale ñu ñëw ñu saafon ñu saafonteeg ñoom donc ñu leen ñu leen ciy gërëm mais di ñaan également euh, élection yooyu euh, yàlla may ñu si ndab et que ñu xam ne liggéeykat yi ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo xewle te ku nekk war nga fexe rek fa ngay liggéeyee bureau de vote bi la gën a jege nga dem fa voté. d'accord euh, wax nga ko léegi que di ngeen euh, xëy na biral seen xeex mais euh, concrètement yan jéego ngeen fas yéene teg bu rombee toogaanu ñaxtu yi nga xam ne. xëy na yéen a ngi koy amal. comme ñu ko niñ ko waxee démb ñu ngi def ay toogaanu ñaxtu démb rek kilifa gu mag toog nañu ak moom. du nag lu ñuy mën a wax fësal ci penc. Mm-hmm. mais ñu ngi def ay démarches yu mag gis ngeen keroog assemblée nationale l'honorable député Diop Sy. Mm-hmm. gis ngeen li mu fa wax. te bi mu ko waxee aussi am na conséquences yu mu jur am na ñu ñu woo am na ñu ñu waxal donc nag ngeen baal ñu suñu stratégie. waaw duñ ko bëgg a dévoiler <laughs> parce que ñu ko seqal. dañoo doy waar trop. bu ñu xamee fa nga bëgg jëm. dañuy dañ koy fax moo tax daal mais yéen daal ñu ngi nekk en contact incha allah semaine bi fin de semaine bii ak semaine bee di ñëw. Mm-hmm. da ngeen gis ay actions yoo xam ne danañ ko teg te Sénégal waxuma la Sénégal sax mais biti bu réew sax danañ xam. danañ yëg lan mooy problème CBAO ndax mënuñu seetaan mm-hmm. ñii bëgg a ñëw yàq suñu banque bu leen fàttali syndrome assis mm-hmm. et Sénégal inter international mi ngi woon mi ngi woon fii li ko tëj xam nañ ko ñi ko tëj xam nañ ko duñu seetaan nag ñoom ñu ñëw fii bëgg jël jël CBAO saboté ko ñun dañ ko fay fekk dañ ñu ko léegi dañ bëgg dem bàyyee ko suñuy doom ak suñuy sët donc loolu moom pare nañ pour xar xar si suñu tànk tubéy jaajëf ñu ngi koy jaajëfal lu baax a baax mm-hmm. on rappelle que c'est euh, Pape euh, euh, général du collège des délégués du la CBAO tey moom la ñu amoon gan ci mm-hmm. bi ci invité ak ci xooxaan donc jaajëf mais tu restes avec nous ah, léegi léegi pour la chronique merci ah, mm-hmm. merci merci merci merci